première dame gën a doon wax. garaaw. naam la xool pour bu ma waxee rek fii wax yow eh bu garaawul yow ba am ba am sedd waay. waaw sant Serigne Touba rek waaw Serigne Touba moom. waaw moom jar na saa yoo xëyee rek di ko sant. waaw safara ñàkk safara ñun dañuy sant Serigne Touba rek waaw barke borom Touba sant rek sant sëriñ Touba moom waa sa ñaanal sëñ Bass Baar rek yàlla yokk ay leeram waaw loolu daal laay ñaan. waaw waaw luñ safar gi du doy macha allah luñ ci am rek mu ngi ci biir waaw. gën a jàpp rek gën a jàpp ndax sëriñ Touba amul morom. waaw nii rek koñ bi moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn lañ ku xewle ñëpp dañuy teew te loolu moo am solo. nit ñu baax lañ wax dëgg yàlla soutenir nañ ñu bu baax a baax a baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm saa ñu xëy na ñu leen sant di leen gërëm ndax dëkk ak ay ku siw dafa yombul waaw ñu ngi muñ bu baax a baax ñu leen di ñaan chaque jour rek ñu ñuy jéggal di ñu baal àq ñu leen baal àq saa su ne yàlla neen yàlla fay yàllaa leen mën a fay yàlla neen yàlla fay. <laughs> sant yàlla rek. <laughs> ah wax dëgg yàlla ñu nag ñu nag safar gi ba mercredi incha allah yal nañ ci yàlla fekk ñu ñëpp fekkee ko teewee ko ci barke Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, lan ngeen wax ci loolu. waaw dañuy kontaan rek dañuy kontaan rek parce que tamit lépp xam naa Omar Sakho ko waral rek parce que ko wax rek mu ne la moom ma dimbale léegi moo ma dimbale laa te nit ka ku ku ku lay dimbali mënoo koo fay daal lii sam daal rek li ko mën a fayee donc moo moo waral mobil

waaw jàmm rek lañ mau, ak moom jàmm rek lah. am ak nit ah. di ko ñaanal jàmm rek mu fekke ko ñun ñëpp ñu fekke ko te ko dara bañ jot kenn ci barke ci nah, barke Touba di ko ñaanal wér di ko ñaanal ñëpp. waaw li wax ci safar gi kontaan tubaarkàlla balla Sak at ni la nekk ak ñun chaque année mu yeew nag yi teg saako ceeb yi teg bidon dawlin yi teg yu neex yi sedd yi tubaarkàlla bañ suba la ñuy dimbali tabaski di ñu dimbali weeru koor eh diñu dimbali magal diñu jox pass dañ koy ñaanal guddu fan ak wér te it soxnaam si yàqu si dara bu di bacci li bala gay bour la tubaarkalla macha allah borom maami as sa alxuraan dina dimbali dina deglu soxla dina fajj soxla yalla nako gëna gën a mën gën a waaw yalla nañ fi waat ay at yu at at yu bari bari ci barke sëñ Bamba borom magal sulayman la tuddu bu Balla Gaye de ginaaw buñu santé yalla ñu ñaan ñaanal Balla Gaye de mu gudd fan ñu fekkee ko bu ñëw ci koñ bu légui jamm leen sekk day kaf yi di reetaan ak ñoom ak mag ñi mag ñi sax da leen def morom parce que amul benn problème xol bi moo baax ñaa ngi rek sekk ak ñëpp jàmm di ko ñaanal lépp lu mu bëgg si àdduna yàlla na ko yàlla defal parce que nit ku baax la maam ak rakam saakees ñëpp ay nit lañu di ko ñaanaan beneen combat incha allah mu jëlaat roi des arènes bi mu indiwaat fii si géej waay parce que nit la tey boo xoolee tey lii nii tey lu mu def boo ko xoolee rek nga xam ne Balla Gaye amul benn problème nit la té bo ñëw si mom nga wax sa soxla bu féké mën na ko rek dina ko def bu féké mën ko tamit lépp lo fék si mom dina la ko jox parce que amul ben problème waaw di ñaanal lépp lu mu bëgg ci fi yalla nako yalla yep defal ñu mu nekkal fi yépp amul ki amul ki ñëpp la boole bo boole uuf leen def leen comme seen ñi mu def leen comme seen rak ñi mu def leen ay magam chaque ñëpp jam bu génnoon fi légui bu gisé sa nga yor ben affaire da koy keuf nekk parce que nit ku bax la xol bu baax la yor man loolu laa amoon lu may seede si moom di ko ñaanal jàmm gudd fan ak wér ak famille am waaw ak saakees ñoom ñëpp ak papam gaa yëpp di leen ñaanal ñu amaat combat jàmm yàlla may ni ndam waaw di ñaanal di gërëm buri moom tamit di soxnam ak Khadija jabaru saakees ak Awa jabaru Ibrahima ak magam tamit di Ibrahima ñoom ñëpp maa leen di nuyu ak ñoom commissaire ñoom kii ñoom commissaire ñoom Bayama Ndiaye ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen sant waaw ak ñoom Badara ñoom ñëpp sant naa ne gërëm naa ne ak yéen ñi tamit télé bi di ñaanal seen télé bi lépp lu ngeen bugg si àdduna yàlla na leen yàlla defal di la joxe leen yeneen télé yu bëri parce que mérité ngeen ko seen tele bi télé bu baax la maa ngi koy doo gis nag waaye yàlla na yàlla def jàmm rek ngeen am lu ngeen bëgg yëpp loolu la amoon lu ma sëñ Tuubaa maa ngi lay ziar gu wér sama xarit waaw noonu la xam nga liggéey sëñ Tuubaa moom amati nelaw dañuy liggéey rek ngir sëñ Tuubaa bii du ma dégg fi ngeen fanaan te sa diggante ak mbër moom kenn dootu ko waxati lu nekk ñu ngi koy wax tey lii day tettal ne yàlla rek moo ngeen ànd ak Serigne Touba lan ngay wax ci safar gi mobilisation bu ngeen def. xam nga ñuy wax ak kii jëf bokkul ñun amatuñu jot di tontu kenn wala ñuy wax di dugg si mbirum kenn amuñu jotu kenn ñun xam ku am jotam Serigne Touba ak liggéeyal Serigne Touba Sénégal na boo fi nekkee bàyyi nit ñi di wax rek yow ngay liggéey te man yaakaar naa sama dara safatuma lu dul liggéeyal Serigne Touba nit gondi Mungkin mënutuma wan luma ma jaaxal ken mënu def Sering ma jaaxal sëriñ Bamba rek la woñor li ñi def ni liggéey serigne Touba rek la Omar lu ñu boole dafa bari tege mu bëgg serigne Touba ma bëgg serigne Touba te muy dëgg ci mom lu muy dëgg ci man mu def ma nak mag bu wër di ak man di wax ak man ci lu bari li nga xamni ñu bari sax duñu xam barki serigne Touba Mbacke am ah, man Omar jarul ma fen mais xol bi dafa rafet. ba pare mu yëg ñu fonk ñu kon lii tey buñ ko organiser muy safar muy njukkal sëriñ tubaa rek kon sant la lay firndeel ne wane ni kon lu muy wax chaque jour ci bëggum bëgg sëriñ tubaa dëgg la te ñun yaakaar naa ne ba ñuy toog di wax Serigne tubaa ci làmb du tey kon loolu na ni firndeel du woon làmb moo taxal ñu wax Serigne tubaa te nit ñi dama bëgg ñu xam ne ñun Serigne Touba moo ñuy dundal. ñu nekk ci lamb genn ci lamb Serigne Touba ni andal ba keroog ñu yowma xiyam ak Bamba kon li dafa nekk lu rafet ñu wo ñep ñep kep koy julli di wax ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidiane khadir layen ñaseen ñep nañ wo ndax da nga ko def rek pour safar ay julit nanu ñu ngi wo julit yep kaf cant Serigne Touba jang xassay Serigne Touba ñaanal senegal am jam. ndax ñun loolu moonu war kon boog ñu ngi leen di gërëm yéen ñi fi teew ak képp ku fi teew ak ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal Omar nag yal na ko Serigne tubaa ak ca kaw a kaw ak mbooloo mi jullit ci barke Serigne Touba.